normal am na importance ci làmb. waaw de ñu wax dañuy wax garde normal. fausse garde xam nga fausse garde ah, ñoom dañu koy dañu koy analyser ci box boxe. Mm-hmm. boxe laal maanaam boo fekkee ne léegi pied droit ngay jiital ah, ah, pied droit. Mm-hmm. loolu naan fausse garde la. boo tegee pied gauche ñu ne pied garde normal la. Mm-hmm. garde normal mooy garde bi la jublu rek bi la jublu. bu fekkee pied gauche bi ngay teg bi nga jiital moom nga mën a bëree. mën ko xeex kooku moo la jublu. mais bu fekkee droite ngay teg tamit te droite bi nga xam ne moom nga mën a bëree mu côté boobu mooy côté bi la jubóo. Hmm. maanaam mbër bu ñëwee bu bëggee bërëm assuré nga teg tànk bi nga xam ne bii ku ko bu lancé coup bu ñu ko fentee bu ñu ko jëlee mu bëre. Hmm. mais li ëpp ci mbër nag dañuy jiital tànk boo xam ne moom la ñuy mën a xeexee mais duñ ko a bëree. Hmm. mooy soit nga mën a bëree nga mën a xeexe droite pied droit nga jiital mais droite nga mën a xeexe waaye mënoo xëy a xeex gauche. mënoo bëri mënoo bëri mm-hmm. nga mën a bëri léegi tànk bi nga mën a xeexee doo ko mën a bëri loolu nag dafay am ci bëri ñii nag dañuy mën a jiital pied gauche mm-hmm. moom la ñu mën a xeexee nag mais duñ ci mën a bëri mm-hmm. loolu nag saa yu la seetlee ak ci sa bëri da xool fi ngay tëdd parce que tànk bi nga jiital mënoo ko bëri suñ ko jàppee da daanu kooku moom loolu moom moo tax ñaan fausse garde ak yooyu yëpp lañ ci indi mais li gën a am solo mooy nga teg tànk bi nga xam ne bi moom nga mën a bëree kooku mooy assurance su mbër tànk bi nga xam ne bi mën na ko bëri mu jàng xeexe loxo bi ci loxo bi tànk bi nekk maanaam pied gauche nga jiital mën a xeexe gauche combat bi départ na arbitre sifflé waaw Modou Lo gëdd Bombardier waaw combat bi mu noonu euh, fii hmm. gis nga ñoom ñaar ñëpp ku nekk garde gis nga. loolu mm-hmm. cokkaas na. waaw boo ko ah. jëlee bëgg ko rëkk mu dem. léegi père yow laa bëgg nga analyser na combat bi di ko xool benn par benn xale yi jàng ñu seetaanaale ñi nga xamante ne dañuy dund làmb ñu mm-hmm. seetaan. waaw ah. noonu. waaw parce que fii tamit dama gis euh, ci ñoom ñëpp pied gauche yi teg rek ku jubul nga moromam. Hmm. parce que bu fekkoon ne kii dafa teg droite am na ci ko ku jubul moromam. Hmm. léegi nag pied ñaari pied gauche da leen Modou fii mu sëgg nii. dafa def erreur. Hmm. parce que boo moytu ko da ngay xool waa ji. waaye dafa sëgg ci suuf. fii ne gisul ci kaw. loolu jaaruwul. ñu waaw parce que fii bu sëgg bi du yoon. da war a sigi rëtt boo rëtt maanaam boo rëtt booy génn. da ngay xool bu kóol bi laawee nga mën a ko bëtt wala mu dóor ko nga mën a fël daw yëg ko. waaye boo sëggee nii gisatoo ki sa kanam. dëgg la waaw fii moo tax moo doon sëgg gis nga. moo tax waa ji ko. Mm-hmm. mu daal koy mm-hmm. fii Modou am na ngem. waaw Bombardier am na ngem. waaw mais Bombardier daa jël poids bi yëpp ci kaw Modou Lo fii nag normalement Modou man soo amoon bi da koy téye ci ndaxu ngemb li. Mm-hmm. waaw daal di indi pied gauche bi ci kanam ba appui bi taxaw. léegi comme loxo bi dem na ca kaw rek am na yoon am na jàll franc bi jaar ci kaw gi. am na fla bi jaar bi nag mais buy jàll di dem nag na ne mboot mboot mën na fex bu fekkee waa ji mbootkat la. parce que man ngaa daw jaar ci wetam pour jéem a jàll fekk mu tenté benn mboot bu lay arrêt gauche moom la jur kaw arrêt gauche bu la tëggee mboot da ngay dem mais bu fekkee du mbootkat loxo bi mu wàcc ko booba day jëm na fii parce que fii loxo bii bu ko téyewul maanaam gauche bi bu ko téyewul ci naqu njambali léegi di loosam lay dóor ci ci ci poqataan bi génn ak déplacement. foofu nag déplacement la laaj foofu nag xam-xam la laaj mooy maanaam déplace bu ko waxee tànk bii mooy déplacé ba la a ñëw waaye su fekkee ba taf ci moroom rek déséquilibre ñoom day daanu. Mm-hmm. ñu dem kon ñaa waaw ñu continuer. Mm-hmm. waaw ñu dem. ba léegi mu nga téye fa mu téye. Mm-hmm. moo di fa mu téye ba tey bàyyiwul du nag ngemb amul ñu wax ngemb li mais boppam génn na côté bële. waa gis nga boppam fi mu génne. xam nga foofu mu ngi doon a plaqué. mais plaqué bi du réussir. parce que plaqué bu réussir mooy nit ki bala nga koy plaqué pour mu mën a dem day fekk mu taxaw en déséquilibre maanaam ni mu taxawee jubul. Mhm. maanaam tànk beneen bi dafa maanaam gauche bi euh, euh, droite bi dafa fekk gauche bi. wala gauche bi fekk droite bi. Mhm. su ko defee taxawaay bi dootul jub parce que nit dama lay wax ne am na taxawaay boo xam ne su ko taxawee. Mhm. fukki baaraam mënu koo daaneel. mais am na noo xam ne suñu taxawee benn baaraam mën na la daaneel. xam nga lu koy parce que da ngaa taxaw en nga xam ne daaneel la fukki baaraam bu ñëw bu ma ko doon daan mais am na noo xam ne su ma taxaw benn baaraam mën na ma daaneel moo tax bi ñu koy bi taf na ko ci morom mi mhm. na doole bi ci morom mi parce que ñaar ñi lu Bombardier bari bari lu mu ko ëpp doole beneen bu tafoo ci mhm. moom day day tiire tiir si bi fab loxoom ba droite ko ci tànk bi fii tiire ko ànd ak moom déplacé day tëdd kon kon fii rek na ko fi daal. mais rek bu fekkee mu taxaw na yàgg nekk ci digg doole taxawal taxawaay bu baax mu bëgg da koo def plaqué du dem. waaw moo tax waaw ñu dem. de bi da bi baax na dem. waaw gis nga fi may wax gis nga fi gis nga tamit gis nga euh, euh, euh, kii Modou Lo tànkam bi da ko avancé kaw. daal di sëgg bëtt jaar ci wet gi takk ndig li fii amoon na takk ndig li parce que fii comme boobu di ci kaw rek moom gis nga tànkam bi tànkam gauche bi toujours pied gauche bi comme mooy nekk ci kanam loosal bi jaar ci flanc bi doo ko takk waaw mm-hmm. fii flanc bi waroon na fii mm-hmm. ñu dem nga loxo poq daan loxo bi saa yu jógee rek war na ñàkk mm-hmm. waaw war na war na koo seen ak suba foo xam ne fii waaw parce que bien que moom it moom it téye na ci ngeen fii. Ah. xam nga bàyyi na loxo ba di dóor. Ah. bàyyi na loxo ba di dóor kon moom am na avantage. Mm-hmm. waaw ñu dem. is nga. mbëtt mm. bi baaxul xam nga daf fii taxawal taxawal xam nga dafa dem loxo yi moo dem mais tànk yi demul. Ah. waaw loxo yi moo ji loxo yi moo dem. Mm-hmm. mais dafa waroon def un peu avancé. ak mm-hmm. loxo yi ànd ak tànk yi. day day dugg carrément mais dafa taxawut tànk yi dem loxo yi dem loxo yi rek a dem mais tànk yi dem du am équilibre bu ko ñettee day dem loolu la gis nga moo moo tax ñett ñu muy ber ko bi sëf ko poids bi wéeru ko nii gis nga boobu bi fii mu téye ni léegi nii xool da bàyyi loxo bi rek da doon bàyyi loxom bi suñu wax ko suuf rek doon ko dënn fekk danaa det foofu tam boobu am na fi lii parce que ba mu rasoo rek mu nekk ci biiram rek mu dóor ko dënn wéer ko rek ci teg ñaar suuf rek fii amatul sens Mm. parce que na koo téye fii téye ko fële ci ginnaaw ëmb ko ci intérieur am maanaam tugal na ko ci biiram intérieur téye ko ba mu dëgg mm. téye franc bi téye franc ba ëmb ko te moo ko moo ko suuf moo ko gën a yaatu mm. léegi lenn rek la boobu kii ak muur la mun def fii tey ji loxo bëre ci suuf nii mu indi ko ci cuisse bii jéem waaw jéem a mais nag sooy moo ko moo ko tax mu muy daan noonu da def un avancé ba fa ba a génn fii mën a jaar ci flanc ba tey da koy am waaye deful loolu mais la le conduite yëpp mooy ni mu taxaw yóotuñu ko. dafa waroon def un pas ba gën koo jege. boo waroon defoon un pas man loolu yëpp mën na ko am. ba tey xam nga combat bi. Euh, gagné guñu ko. waaw dafa loo xam ne lii rek bu ko ci liggéeyam te moom xëy na mu seetaan li may wax. wala ku ku mën a bëri xool li may wax ba xool li may wax di xam ne kii li ma wax bu ko defoon de làmb ji mënoon na ci am ndam. Mm-hmm. ñu dem. ayca waaw. voilà. ñu nga fii. dafa war a sawar samp arrêt de gauche bi baax na mais bi dafa wàcc. loxo droit bi waaw gis nga fa mu ko wàccee baaxul. Hmm. booy am arrêt de gauche sa kii laaxal bi dafay couvrir sa mâchoire. parce que fii waaw du waaw dafa war a booy jàmm gauche nii. Hmm. loxo bi fii la ne du wàcc. Hmm. parce que boo nee nii wàccee loxo bi fii waa ji mën na dogale laaw la crochet menton dafay toog. da ko doon dóor mu kaaw. parce que gis nga fii tey loolu bu du moom a di xooloon day fël bi daw di yëg ko crochet. wala bu waaw parce que dafa gam góosam mais loxo bi dafa wàcc jaaduwul. booy dóor góos loxo bi day yéeg maanaam bu ma lay dóor góos dama bàyyi sama loxo fii. fii la loxo bi nekk. parce que dafa war a nëbbaale fii. parce que fii point sensible la lu ñu def daal nga dem teer. moo tax booy jam da ngay fermer waale fii waaw ñu dem. waaw gis nga ba tey gis nga ko tànk bi gis nga ko. gis nga kii bu doon teex ka fii bëre bi jeex na. Mm-hmm. day sëggale korloos bi su lu wax boo ma di jeexal woon na bëri bi fii. Mhm. gis nga ko waaye ba tey action bi gaaw na xëy na mën naa am du ko gis. Mhm. waaw moom toujours du du yi rek la xool. Mhm. ndee ndee fii ni kii waaw pour man xool na rek xam ne kii maa ko ma ñu ko baral rek pour ma ñu ko xeexal moom xeexal moom jël ko du ma jël ko daan ko doon mais loolu mooy andi bëri bi fii yëpp mais bu fekkoon ne moom moo loolu dafa calculé ne. kii moomu sut naa ko nag waaye lenn moomu ciy génnee. mooy xel. dafa am combat yoo xam ne yi fit ak jom moo la ciy génne am na combat yoo xam ne stratégie moo la ciy génne combat bi nag combat stratégie stratégie moo ko ci war a génne du woon combat fit ak jom fit ak jom ni mu ko doxale nii ñu dem bas ñu dem waaw gis nga ba tey mu ngi tëb di ko dóor noonu mm-hmm. waaw foofu tamit am naa fi xalaat mm-hmm. gis nga un euh, adversaire mm-hmm. bu la sutee im la doo tëb di ko dóor da ngay bàyyi mu dóor dóor nga dajeeg moom xam-xam laa la wax de booy dama ne remise moom na ko dóor ko boo xam ne bii day léew tamit ba bees a gàddam rek di ko moytu rek ba mu ne yëmat di dóor sax mu fël ko daw yëg ko ku ba mu koy dóor boo ko sànnee day egsi loolu moo doon waaye bu def te taxaw nga tëdd ko dóori gis nga fii tam toujours rek maanaam boobu de saa yu loxoom génnee fii rek kii tamit day ñàkk mais gis bi mu xam naa bi mu jógee seen kër ñu ngi ko naan sàmmal say tànk dina ñëw say tànk sàmmal say tànk mu loolu xeer day ñëw say tànk xamoon lii sóoraale na ko waaye sóoraale bii Modou Lo bu fekkoon ne tey ne lii calculer ni nii ne waaye da ko seet bi moom amoon na bëri bu ja mu jeex bëri bi jeex. waaw ñu dem. gis nga ko gis nga fi mu génne. gis nga ne mu génne. Mm-hmm. jàtt na ko mu daal génn génne boobu tam c'est bien génn bi baax na waaye ba génne ba daf ko waroon may écart. Mm-hmm. waaw waaw da ko waroon may dem mu dem waaw. gis nga fii tam xoolal rek mm-hmm. gis nga teel teel gis nga fii tam voilà gis nga Modou fi mu téye ci kudd bi nii. flexion lay àndal. day joow code bi flexion daw tatafu ko kii bëri bi jeexoon na fii mboodu wallahi taala gis nga même waa ji tee boobu boobu même bi téye na mhm. xam nga même droit téye na mais fii mu téye ci kudd bii mhm. kudd bi mu téye nii mhm. flexion lay def rek joow ko mu dem flexion lay def rek joow ko mu dem da koy tatafu ndigg li mu jeex tàkk fii li mu ci amoon ko sax ñu dem ñu dem xoolal fi téye kudd bi kudd kudd bu baax la amoon ah. waaw parce que coup bi pour ma ñëw coup bi euh, Bambodi di dóor ba suba du ko wàññi dara parce que faar fii ci yoon génn ko ci faar nga koy dóor fii fii ak dund yi nga mu entraîné ba jàpp forme dara moo tax fee mu féetale boppam moo baax mm-hmm. waaw parce que bi ñu jàppale fexe ba boppam féete ci côté bële xam nga mënu ko dóor loxo bi xam nga mënu ko dóor fële ah. parce que loxo bële loxo gauche bi la téye fële doomu jéem a dóor a bi mm. te droite bi fi mu ko dóor du ko mën a gaañ moo ayca ñu dem ñu dem. nga téye na ko téye bu dëgër foofu. Hmm. waaw mais dara. si arbitre bi àtte na. waaw te kenn gisul coup bi Modou Lo bi waaw c'est que xam nga ci biir xeex. lu hmm. ne mën na cee feeñ. parce que ci biir jàppante bi. Hmm. c'est que Modou mën na koo laal foo xam ne fii. laal boo xam ne bii rek ci génn ci génn bi mu gaañu ci bët. wala mu gaañu feneen. waaw parce boo bëree. lu ne mën na ko ci kaw xamal tax parce que dafa ñëw ne kii foog ma duma ko jàpp ko daal parce que maa ko suuf maa ko ëpp loolu la ñëw. moo tax may la Modou Lo li a bëri xeex xam-xam naxaate la war tax ànd ak borom xam man de waaye nga ànd ak ku lay xam-xam. nga la waa jii de tey jii loolu la parce que daa la nettali benn combat. waaw mooy da nga dégg bàkku Falan Njaay bi mu naan dërëj jëmu ne dërëj ngóor. ak wasat jamono wasat ngóor hmm. ak lëfañ di ngóor lëfañ hmm. boobam ngóor am bombardier la hmm. waaye xam na ni kii jàppante moom du jeexal combat danger la ci man ñu di ko déedéet ñu defe da ko jàpp ne ko wasat nga loolu moom xel la bëri moom moo tax kii tey Modou Lo combat bi xel la woon na bëri kii waaw parce que nag mais topp fugaam rek ak jomam dégg aywa ñu dem ñu dem si at bu gaañu fa ñu dem si daan hmm. ba tey loolu ndam la ci Modou Lo waaw fii tam daa la fi wax daal déplacement bi daa doon déplacement fii itam baaxul. Hmm. booy déplacé jëm gauche dégg nga te tànk euh, tànku gauche nga jiital. Hmm. sa te sa gauche bi day dem droite bi door a ñëw. bu fekkee côté droite bi nga jëm droite bi mooy dem tànk bi doo a ñëw mais saa yoo jaxasee say tànk nag déséquilibre ñëw na. waaw loolu tamit booy nañ koy moytu ci déplacement. moo tax boo ñëwee ci judo wala karaté wala boxe yooyu dañ lay jàngal nu ñuy déplacé ba pare ba lañ lay jàngal dañ lay jàngal nan la ñuy taxaw nu ñuy déplacé. ñu dem waaw voilà gis nga fii nag gis nga njatt bi gis nga fa mu tooy njombal ca ginnaaw xam nga fii nag moo doogi ci danger boo xam ne toujours li ko koy yóbbee. mooy maanaam buy song boobu bi du ëgsi. du ëgsi day maanaam tànk yi day tànk yi du ñu dem. mais loxo yi mooy dem. Mm-hmm. maanaam day amul vide. vide boo xam ne bi loolu tax mu mën a jàpp ci njab ne fàq ko waaw parce que mais dafa waroon a ñëw normalement song dafa nekk si carrément waaw song bu seere rek bu maanaam song bu matee rek jël ko daa xam na njett bi fii pour mu génn ko njettee bali ëpp bi mu siggee xam nga njett bi wéeru na bi mu siggee fii la ko dóor mais siggi bi mu la ci woon a bàyyi xel njëtt bi na fa toog rek ne teg waaye njëtt bu seeree mu bëgg a génn bu génnee waa ji dafay accompagner accompagnement bi mooy téeri ci ngeen da koy daal dóor fii dóor wala mu pousse poussaale ko jaay ko doole day daanu dégg waaye bi muy génn nag war naa bàyyi xel ci maa ngi génn fii bi nga jàpp nga war a génn fii situation war situation danger laa nekk war cee génn su ma ci dee génn damay bàyyi xel fi lu may génnee am parce que booy génn say tànk taxawatul maanaam tànk yi day dajaloo kon tey su may génn moo tax dañ lay jàngal booy attaqué nooy booy génn génn buy génn tànk bi ci ginnaaw la na ràcc mu dem maanaam xam mu pied gauche jiital war na bi door a génn door mais dafa génn ndoo ñaari waa ji ko moo tax Bombardier daa bàyyi ba muy waaw mu génn waaw que boobu tànk tànk yi daje na amatul taxawaay hmm. amatul taxawaay na moo tax ma génn da ko war a laaj xam na ne fii ñett la ma du ma fi yekk génn su may génn pied droit boobu comme pied gauche jiital pied droit bi lay génn ba pare door a indi droite bi wala bu fekkee góor droite bi leen génn kër yéen door andi droite bi. Mm-hmm. pour assurer taxawaayam. Mm-hmm. parce que fu ñu la jàppee ngay génn da ngay sa taxawaay soo assurer sa taxawaay bu ñu lay daan doo xam sax nu ñu lay daane moo sax taxawaay lu am solo ci nit la. père mu am leneen lu ma ci seetlu. mooy Bombardier bi mu demee Ardo. waaw dafa ñëw mën loo bëgg a gaawal combat bi. waaw gën a favoriser xeex bi. waaw te bi. parce que moo tax bi mu ko favoriser Bombardier bi mu ko jàppee bëre bi dafa gën a gaaw ci moom. bi xam nga euh, dafa am loo xam des fois koy juumloo ci làmb parce que di nga bëri mbër léeg-léeg nga jekku ko léeg-léeg nga gaañ ko ne ah kii ko dara nekkatu fa xaaral ma dem jekkali ko fekk na mm-hmm. booba euh, daraa nga fa daa gaañu rek waaye bëri bi jeexagul loolu loolu loolu mën naa juumloo mbër man mm-hmm. ngaa ñëw ci benn jiwal benn sëriñ boo xam ne bi tam seet seet yooyu mm-hmm. ñoo la bu jaawee demal ak rek demal àggale ko baa fi jeex na. muy benn course yi ne ci sa ginnaaw tamit nga xam ne mosuñoo bëri mosuñu am takkusaan bu mag tamit mos nañu la ak bëri bi jeex na waa ji jeex na gaa ñu ko. Mm. te fekk na boobu def nga musiba. Mm. waaw loolu dal na mm. naa fi di yu bëri yoo xam ne leen daan da waa ji dafa gaañu rek ñu defee ne bëri bi na. dem àggale far daanu. parce ñoo ko def seen bopp. soo ko bëree ba mu gaañu su ñëwee da nga koy may xel da koy bàyyi xel sooy bëri nit mbër mu gaañu dégg nga gaañ nga gaañ ko su ñëwee bàyyil xel soo ko bàyyi xel mu jum parce que bu ñëwee de bu dee damay kut de kut parce que pour moom li mu ñëwee mooy ko damay fay. kut kut ko damay fay. mais Bombardier ni mu bëree nii la waroon a bëree ba am ci ndam. waaw non non mën naa bëri woon mais déggoo may ci biir bëri bi am na ay facilité yu bëree bëri mais loolu du ñëw ba làmb ji ko def da koy jàngat. da koy ko. Hmm. waaye du loo xam day ñëw ci làmb ji doon mu bëree nii am ci bëri baax na ay bunt yu bari feeñoon na ci waaye loolu nag dañ ko koy wan mu xam ko sóoraale ko ñëw gisaale ko nga xam ne bu fa tolloo rek xam ne fii waxoon nañ ma lii bu ñëwee day daal gis bunt bi lam yoram mais bu ñëwee rek ñëw ba làmba ci doon bunt yooyu gisu ko woon xamu ko woon ko jëm du ko mën jërëjëf <laughs> jërëjëf Père Birahim mbokk yi lañ ci àndaloon ci jàngat làmb gis ngeen li nga xamante ni dégtal nañ leen ko ci diggante combat Bombardier ak kii di Modou Lo dinañ leen indi yeneen combat yoo xamante ni dama ciy ànd ak sama papa mm-hmm. ñu décortiquer combat bi waxtaan ci bépp xale boo xamante ni yaakaar nga ci làmb mm-hmm. ngay nga koy kar fii ci wasaare làmb bi mm-hmm. nga ko am ñu ngi ko bëggee Père Birahim dinañ leen jox ay leçon yoo xamante ni képp kuy mbër toog sa kër di nga xam ni kat boo demee entraînement di nga ko mën mën a jàng boo ñëwee làmb bi mën koo tari père maa ngi lay jaajëfal bu baax. waaw jërëjëf maa ngi kontaan ci yow taat xaalis di ñaan yàlla bu yàlla na yàlla def muy sunu mujj daje. di ñaan waa wasaare làmb yëpp yàlla na sud bi dox ba. romb àgg fu ñu ko foogewuloon. yàlla ci yàlla def ndam. ba ki ko sos tamit am ci gis ci ne daal yaa fexe am na réussite. Hmm. yéen ko yor tamit yàlla dafa leen jàmm ak sutura ak straza hmm. eh, di kontaan ci initiative yëpp eh, yëpp rek pour ngeen bëgg ñu fi wax ngeen ñu sant lu baax sant nañ ko yàlla. Hmm. lu fi jóome tamit ngeen xam ne matati doomu adama la. et eh, suñu xam-xam rek la ñu waxee. xëy na am na sax ñoo xam ne ñoo ñu xam-xam. bu boobaa ñoo nit tàll nañ leen loxo ñoo yokk ñu xam-xam rek. discussion la waxtaan ci. ñu gën ci waxtaan ne ah père yow kon waxee na nii waaye man nii laa gisee woon. loolu danga maa yokk yokk yokk ñeneen ñi rek jërëjëf maa ngi kontaan trop ci yow di kontaan si yow hmm. jërëjëf jërëjëf mbokk yi kon ñu ngi leen di tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo di tàppali ko booy lekk incha allah ci jàmbat lamba hmm. bàyyi ji lekk Père Birahim hmm. yeneen daanaan jërëjëf jërëjëf